parce que bëgguñu affaire bi leer te affaire bi dafa war a leer parce que y a combien ñaata oto ci toj ñaata station. Mhm. ñaata nit ñaata ñaata ñaata nit ñoo ci blessé. Mhm. oto jàmbur yi ñu yàq morgue yi euh, morgue sax. Euh, euh, corbillard yi sax lakk nañ ko ak jàkka ak mhm, juma. lu ne gis nañ ko fi. loolu Ousmane Sonko amul droit jéggale ko. moom mënul jéggale du Adji Sarr mooy jéggale ñoom peuple bi nañ amal affaire justice la Ousmane Sonko amaloon affaire. parce que justice tax mu affaire moo tax demul cap aji sar ko xañ loolu de moom Adji ak mambay ñaar ñoko ñoo ko xañ loolu moo tax demul 2024 kon Ousmane Sonko dafa amoon problème ak justice mm. Ousmane Sonko dafa doon diffamation ñaar nit la fa diffamé dafa diffamé mambay ñaar motax mu am problème ak justice ñu woo ko mune mune mu du wuy ji dañ ko wo ñu mune du wuy ji mm. te dafa diffamé léegi lam doon waxal mambay ñaar bop yoon wo won ko te mom mune won yorna preuve du ñu preuve tekko ñu jëli mambay ñaar lu ñuy xaar mm. waaye bu ñu sonal way ah. ah am nañu am nañu dégg ñu bari nañ preuve am fa ah mais Ousmane moko kan, waxone mo moo fi fii ne moom yor na ay preuve mais na génne preuve ba pare teg dafa am attitude bu ñepp remarquer ci mom né nañ mom ya, ya, ya, lu mu yek mu siw lu mu yor génnee ko donc bu yoron ay preuve dina ko wone mo ñu jaaxal loolu seetlu nga la wax na ko comme mom lool la lool la digone askan bi hmm. lepp ci projet bi. na taxaw génne preuve yu taxaw ñu dem jëli len wa mais Ousmane bo sété ay waxu demb mak waxi tay boko mengalé tar du ci deug man la wax lool wa c'est un c'est un grand menteur. lu leer laa la wax dara lu ci dëgg dafa fooyee askan bi ban jox ko réew mi waaw léegi nag nan liggéey waaw ñu teg dara parce que fi mu toll nii mi ngi maye ay xaru tabaski ah. ah Azoura def na benn vidéo da jox nañ ko segu un million te dañu waxoon ne kumba am day kumba day day jóge ci réew mi lii moo lay wan ne ñoom ñëpp a yam ku fi toog sa bopp nga fi nekkal mm. man de benn politicien jaraluma dee wala nga may jaral xeex mm. man su xeex sama indépendance bopp laay xeex mm. mais pas ñoom léegi wàññi bi daal jàpp nga ne daa wàññiwul dara waaw kii daa mën a wàññi vingt litres diwlin wan ci daa mën a wàññi dara xam nga fii Sénégal mooy solution bi mm. mooy lim gëmloo woon doomu aadama yi mu wax leen la gën maanaam li ñuy lekk ñu di ko bay mm. bay dunde nan wax ci problème agricole bi mm. nan wax ci jeune entrepreneur yi nan wax ci booy yi di cek-cek ak booy gardiennage yi séeréer si taxaw fi nekk fi xës Ndakaaru ñu jéem leen a xool nu leen di financé. Mhm. ban mën a dem dem bay jox leen ay tracteur jox leen ay nànkam pourquoi pas mënu ñëwoon accéléré ci loolu. Mhm. ñoom ñoo waxoon ne dootuñu leb xaalis ñu gis Diomaye ak Ousmane xaalis bitim réew dama ne l' état sa réalité. Mhm. gis nga gis nga xale xale bu xamul état. ñoom mosuñoo xam état xamuñu état xamuñu dara buñ jëlee jox dénk état lu ñu dal ñu ñoo ko teg suñu bopp lu ñoo toj suñu bopp parce que ñi xamuñu état sont pas des hommes d'état man maa la wax ni ñu waxee sax da nga japp ne aussi du yoon. way ban ban yoon di menacer nit ni pour la mel ni ñi dañu ragal kaso te ñom ñu tëj leen fi kasso ba genn doon li doon nit ñi ñu kasso mm. waaw fi yalla rek fi nek mm-hmm. waaw te lu way def bopam lu way rene sa loxo lay nacc mm. man ma la wax li li ñu def sénégalais yi man gisagu ma sama bopp. Mm. waaw te ñi ngi bëgg tass yaakaaru sénégalais yi te billahi wallahi wallahi wallahi wa taalaahi ah buñ moytuwul seen bopp tamatu leen buñ ci rew mi. d'accord walum pétrole bi te Ousmane te gis nga Ousmane mi ngi def lepp pour gemi ñu jomay dafa melni jomay moy jité ci rew mi bala may dee ñu naan Ousmane moy jomay jomay moy Ousmane di naxee lolu Sénégalais té lolu lepp xam Ousmane la. mais pour la loolu ñom ñaar duñ benn. noonu de leneen kenn ko ne bu guddu jotté da ngay dem fanaani ci kër kii dafa yor ay soxna ki yor ay soxna. nee na seen ànd dé yàgg dama né dama ne dama ne dama né way fi ñaat ñoo fi tuddee doom xey kenn ko ne ñu fantasiro ku ne dem. dëgg la loolu chaque jour nga gis ko fi surtout rawati na politique yi wala nitu soo gis bi. Mm. tuddee dom mom yomb na len ñoom ku ci am sa doom léegi nga tuddee yonent wala nga tuddee ku baax bu ko def seen biir lañ koy tuddalante di neex di ko neexalante seen biir mm-hmm. kon nan bàyyi seen caaxaane ak seen lii ñuy def mm-hmm. man d'accorduma ci tey d'accorduma ci suba mm-hmm. na bàyyi jomaay liggéey jomaay nan jox réew mi jox ñu Ousmane Sonko réew mi boo liggéey bu ñuy laaj compte à jomaay la ñuy woo laaj ko dan la joxoon lii ak lii moom mooy wax du du Ousmane moo fay teg tànkam mhm. tey jii da ngay gis Ousmane day génn jomaay génn doo xamee kan mooy président boo leen xamut parce que day sol ko si mu sol ko si waaye nag que musuñoo gis musuñoo gis voilà merci beaucoup musuñoo gis président boo xam ne saa boo foo taxaw kenn day taxaw sa wet te bokkul ci bokkul ci affaire yi moom premier ministre na yem place premier ministre hmm. loolu mooy dëgg hmm. Ousmane da ngeen koy wax dëgg mais réew mi kenn du ko wax dëgg dafa mel ni réew mi Ousmane ay jiite yow kenn du tudd sax jomaay ah, jomaay tamit moom it na na na nekk nit parce que wax dëgg yàlla yow réew du ay maslaa ki niyoo mm. ak i taalibe yooyu réew la la jox entier waaw réew mi nga nga yilif ñëpp danga war a liggéey nga génn dëggal sa bopp loolu mooy dëgg réew mi Ousmane joxu ko ko yàlla suñu boroom moo ko jox jaarale ko ci sénégalais yi waaw noonu la demee. est-ce que seetlu nga erreur bu ñu bu ñu def euh, euh, ba ñuy annoncer prix yi baisse des prix ci denrée euh, de première nécessité yi ki nga xamante ne moom moo doon joxe prix di di ministre secretaire général. mel ni amuñu ministre de la euh, ministre du commerce wala sax porte-parole du gouvernement. déggoo li ma la wax ñii instant bi dañoo nekk di dam yee di làmbatu. dam yee lu ma gën a gis. dañoo nekk di làmbatu fi mu toll di tatine xamuñu fu ñuy taxaw parce que dañoo réer. Hmm. parce que man birki démb li ma gën a tiital bi ma déggee ministre de la justice. Hmm. Ousmane Sonko nga moo ko wax. moo ne. moo ko weeree. moo ne ministre de la justice dane ko ndax ma jàpp diw. Hmm. Alassane la Alassane ne ko ndax Alassane mii kat ci ñun la bokk. defe ñu ne lolu yor la. loolu normalement ñom ñaar ñep ta yag nañu tag bobu lay ki de ministre de la justice. wa mais dama ne ministre de la justice ministre de la justice. Mm. non seulement faute bi sax dama na Ousmane la. Mm. parce que la xamna la xamna Ousmane la. Mm. Ousmane bi ko joxee réew mi dafa teju ne day fatu ken déggu ko. deux jours ñu ne Ousmane lu mi def ñu ne Ousmane nee day tan ay ministre ñu ne Ousmane dafa bëgg tan ay ministre excellent yu fi amul lu fi kenn mësa def lu Ousmane def. après candidat la waxoon de. waaw. Ousmane tànn tànn tànn ba sonn tegal ñu lii léegi mu ñuy ñëw taxaw ñu naan ministre de justice moo ñëw di ko laaj est-ce que loolu est-ce que loolu yenn na maanaam parce que bu fekkee ne Ousmane bu fekkee ne nee na moom ñu qualifié ñu taxaw la war a tànn ñooñu yaakaar naa ne seen liggéey waruñ cee nekk di laaj parce que ay magum jëmm nañ dun ay ñot waruñoo tool parce que loolu erreur technique la. Mm-hmm. te erreur technique ci société koo def la war a dàq. normalement dafa war a démissionné bàyyi bàyyi bàyyi parce que fii kumba am ndey kumba am ndey dafa war a jeex amul fii Pastef la ba amul fii APR la ku fii def lu dul yoon jalgati yoon dafa war a dal sa kaw mi lii mooy dëgg te man dama koy wax dama koy continuer di wax dafa bëggoon a conseiller rek wane bon exemple quoi wane ne ñun fii dañoo déedéet loolu du bon exemple te kenn du ko ci farle kenn du ko ci neexal mm. mënuñu la dénk responsabilité nga naan damay laajte ndax ma def lii wala ma def nangam déedéet. non non Sonko nu mu ah. a hmm. a démissionné. da ko hmm. war a dàq mu démissionné moom Ousmane parce que day xam ne. loolu ko foofu biir nekk palaasam pala palaasam palaas bi hmm. nga dëgg gi dinaa ko wax du ma nga mais dëgg gi laay wax dëgg gi nga may wax ragaluma ci dara parce que télé ba may liggéey Feeling Dakar sax menacé nan ma ci mm. patron bi sax woo na ma noo fii waa kër Ousmane Sonko la nekk ñoom ñoo ñuy seetaan mm. donc dama bëggoon booy wax nga raay wax ma ko sëñ bi bu dee waa dal lay fay Ousmane Sonko da lay fay nga wax man mm. fay sax naa droit bu taxaw di ko wax waaw mu ne ma noo kon ñu jëlee la ci ma man nga ñàkkuma fu waxee damay wax Mm. dëkk gi moom dama koy wax réew mi kenn moomu ko. Mm. boo demee ba sa télé nga jël ko ne télé bii télé mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ñu jeexalee ak ba tey ah, bu ñu Sonko toog gis nga vidéo boobu ne euh, première baril kii euh, euh, ñu ngi ñu ñu ngi exploité pétrole bi 2016 a ko waxoon ñu ngi manque di yóbbu bato yaa ngi ñëw di duy di dem xamuñ suñu bénéfice fu muy nekk ah loolu yëpp moo ko fi waxoon ne nekk te loolu yëpp nekkul woon dara ah, déggoo déggoo li ma la wax loolu laa loolu laa lay wax moo tax ma ne la man ci ñi ni nax man bokkuma ci hmm. parce que tey bu Ousmane tey li mu fi yëpp ñëpp xam nañ du dëgg mais li mu doon wax tey ji nee na leen projet bi 2050 la li mu wax yëpp nee na projet bi muy wax 2024 ñëw na projet bi. Sénégal vision 2050 2050. léegi nag 2050 moom ndax dina ko dina ko fekk wala dina ko fi bàyyi ñun mm. ñàkk ñu fayda de. mais yaakaar ngeen pétrole bi 52 pour cent yi ñu si war a am si début bi Sénégal nekk majorité que war nañ cee mën a gis suñu bopp. waaye ñii ban gis seen bopp ñoom instant ñu ciy gis seen ku jël xar may ko Sankara Mbaye kay nga xam ne influenceur la téléphone lay taal naan Ousmane Sonko fi ko xar loolu la ñu waxoon ko fiy jëlee jël assura assura wane ab Ah, ñoom ñu ngay paajoo seen biir ñii eh, dañoo mm. xiif yow tamit ma mm. ñoo xiif dañoo xiif nii baax na yàlla bëri na sutura mm-hmm. <laughs> loolu moom ma see teg leneen billaahi kontaan naa jërëjëf maa la a kontaan di di di di la ñaanal waaw yàlla suñu la sàmm la aar la taxaw bi